suñu mbokk internet yu 5M TV euh, Sénégal ñu daal di àddu rek ci xibaar yi lay jom ci euh, Guy Marius Sagna député bi la mu xamle sax ma ngay wax ni lu toll nag ci téeméer ak fukk ak ñetti ñoo xam ne rek waaye détenu politique lañu la ñu jàpp fii ci Sénégal Macky Sall moo ko daal di def ndax lu toll rekk ci juróom benn fukk ak juróom ñeenti ñoo nga ca Jurbel lu toll itam ci ñeent fukk ak benn ñoo nga foofee ca Rëbës benn nekk foofee ca Cap Manuel Diourbel ñaar ñu nekk nag ca commissariat central ci jamono joojee sax ñuy wax ni Sénégal rek ab pays néocolonialiste la fi mu nekk ni ñu gis ni sax patriote yi ñoo nekk ci kaso yi Sénégal ba tax na kookee nag ni Guy Marius Sagna ma ngay taxaw di wax ni rek Macky Sall fi mu nekk ni nag yaa ngi ñu yóbbu ci ay mandat de dépôt waaye loole dina tax rek ñu gën a taxaw di jàmmarloo ak yow jëm ci ñetteelu mandat bi nga xam ni danga ko fi bëgg teg